man la Chérif Dia bu télévision Futur Média laaj bi ni laaj nag euh, ci dëkk bi comme ñi ngi waajal màggal gi bokk na ci comme ñi ngi ci nawet bi jeexagul te mbiram assainissement nekk loo xamante ni lu soxal waa dëkk bi ndax gis nañ fi yenn saa yi euh, mbënn mi ni mu sonalee waa dëkk bi te am na ay projet yoo xamante ni nguur ak Sénégal am na ko fii ñu bëggoon a xam fan la toll ak lan moo ci seen soxla yéen waa dëkk waa Touba ba nga xamante ni buñ ko saafara jafe dootul am ci wàllu mbënn mi bi ci des euh, wàllu kaaraange lay doon comme dëkk bu mag la bu mooy Ndakaaru mooy ñaareelu ville bu Sénégal war naa soxla mbir ci wàllu kaaraange te yenn saa yi ñu dégg fii ay jafe-jafe ci wàllu insécurité ñu bëggoon a xamit euh, kilifa yi ban gis-gis la ñu am ak yan jéego lañ ci def ngir loola mën a dakk ba mu Touba mën a wuyoo euh, turam déggaat nañ fi également mbiram garab yi am na si ab procès bu fi amoon ba ab avocat jóg ki dem mu ne Touba am na ay yu ñu fiy dégg loo xamante ne euh, mënta neex kenn ñu bëggoon a xam également loolu lan moo ciy gis-gisu kilifa yi rawatina médicament yi ñu fiy dégg ñu ne dañ koy jaay te du jaar ci yoon loolu lan moo ci euh, jafe-jafe euh, mbir yi loolu moo nekkoon sama laaj. Touba nag ku ci wax faaw nga dellu ci cosaanu Touba Serigne Touba moo bindal boppam ba tax mu sant dëkk bi dafa wax ne li ma sant Touba. mooy li taallumi wa taalim jàng ak yare waxoon na itam ne li tax ma sañc dëkk bi yaara tax mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi ndax Tuubaa day lu suñ borom dogal ci lu yàgg mboolem nit yàlla yi di ko xëccoo suñ borom jagle mu ñëw fi itam fekku fi dara ay rabbi àll fekk ak i garab Serigne Touba ànd ak taalibe si taalibe bi jox leen liggéey ñu gor dëkk bi boo fekkee ne Serigne bi doon réer di bàyyi ko Darsan di wër dëkk bi ba gis ko fii ñu tudde kër Touba bi tey ñu fekk ko fi Serigne Touba gorlu ko sanc ko taalif xasiid ak Matlabul Fawzayni muy lu dox digg ma borom mu ñaan fi mboolem loo xam ne bëgg na dëkk bi mel loo xam ne bañ na dëkk bi ni loolu kon Touba nañ xam ne li ko sos mooy dëkk la boo xam ne suñ boroom da ko jagle Sëriñ Touba mboolem lu mu ko fi ñaan itam suñ borom may na ko boo gisee dëkk bi ak si tey loo xam ne téeméer at ak néew la lu ma ñaari million gi dëkk fa loolu xar baax féetewu ko dëkk bu toll ne tubaa itam am na kilifa bu ko daax booba Serigne Saliou fi dadaa wax ne li gën a yéeme de dëkk bu toll ne Touba nga wax ne ana ko ko sanc ñu ne doom ngi nii doom a ngi nii ci biir kër gi loolu xar baax bi la féete kon euh, Serigne Touba loolu la ko suñu borom njëkk defal mboolem loo fi gis itam nag moo ko ñaan suñu borom suñu borom ko. njàmbaaru taalibe yi nag dëggu ci te fenc ndax sëriñ bi dafa waxoon ne wajbu lahal xayra min al jihaati as sitti wa fiha anil afati mboolem suñ borom nag ma may fu xéewal mën a bàyyikoo ci àdduna rek dama fekk sama dëkk bi Tuubaa boo gisee lu fi nit jaay mu yomb ku fi dëkk sa teraanga yomb loolu pàggutéefu sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nag dafa am lu mu di digle woon ndax dafa fonkoon Tuubaa sëriñ Son bu daan ne nett li di wax ne bu ma sànn gis ku bàyyi ko Tuubaa balaa wax kenn day wax yow bu noppi am na ku ma sa wax ne ko yow mu jógee ci sama dëkk bu tedd ma nu def mbaa ndox mu ñàkk maa ngay wàññi mu ne ko ah Mbàkke de loolu moom ndox ndox ma day ñàkk lool ba tey mu ne ko loolu de wax na diir bu gàtt dana jeex ndox ma dana fa sotti ko mu ne ko ah xanaa loolu mbàkke ku gudd fan loolu du ko fekk Sëriñ Tuubaa nag ku gàtt fan du fekkee dafa ñu teg ci fan néew mu faatu kon pàgguteew Sëriñ Tuubaa la bi Sëriñ Tuubaa di digle jumaay jumaay Tuubaa ji ba wax ne kenn ku ci ne joxe ñaar fukki dërëm ak dafa am ndénkaane bu mu ci waxoon boo xam ndax ma de fàttali ndax loolu bokk na ci li tax Touba ak si fii ndax booba xam ngeen ne tubaab yi ngir bëggoon a gàllankoor liggéey bi dafa tax ñu tegoon sëriñ bi ay conditions yu mett ne ko bala ñoo may autorisation ngir nga mën a tabax sa jumaa ji ci Touba faw nga dajale lim bu bëree bëri ci xaalis ngir entreprise bi ko war a tabax faw mu am garantie bu wóor buy tax mu mën xam ne dana ko mën a liggéey sëriñ bi woo taalibe bi yëpp ne kenn ku ci ne na nga joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett loolu bokk na ci li sos yoon bi ba ba mu dajee nag sëriñ bi dafa dénkaane ak dénkaane boo xam ne dañ ko war de fàttali ko dafa wax ne sëriñ Malick Ndiaye mi nga xam ne moom la daay yéeneloo dafa wax ne maa ngi leen di digal ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fa na ko fa mooy maa ngi leen di digal ci lépp lu ngeen soxlaate wala lu ngeen bëggate rawat na lu mel ne néegub yàlla bii na ngeen ci góor góorlu seen kem kàttan ba fa seen doole yam lu ngeen ci mënut ngeen dem ndax saa yu wuti ko wuti ko ba am ko ci anam gu sell fu ngeen ci jëm ba tëli ngeen toog xaar fa say jaalullahu alamu sëñ bu sax te rikki nag maa ngi leen di wartandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seeni aajo yëpp daañ leen xañ seen ngor tilmal seen biir daa ndax yaare gi yoo xam ne képp kum ne ceew ku ne war ngaa fexe ba sàmm ko ba du jóge ceew képp koo xam ne amoo ko it war ngaa fexe buuti ko loola nag la jiitu ca la koy xañe mooy ñàkk mooy fexe ba moom sa bopp ñàkk sa bopp ngeen bokk na ci li ci a dimbale nit man man man sa bopp moom sa bopp ak ñàkk sa bopp ndax nee boo moomee soow doon nangu lenn moom la dugub yàlla wala mooy nee keneen ko la moom nee na boo mënalee sa bopp itam boo ñagee sa bopp itam kenn ko la wala nga jël sa yitte di ko wér nit boo mënalee sa bopp itam doo jël say soxla di ko wér doomu aadama yi nee na kon nag maa ngi leen digal ci biir ndénkaan bi yéen ñëpp ngeen góor góoru ci jàmb yàlla te nangoo liggéey ba lépp loo xam ne soxlaati ngeen te mënu mënu leen ko ñàkk ngeen feex ba wutoo ko seen bopp loolu ndénkaane boobu ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha sukkandiku ba raay bi bi kuñ ko ko tegee ci condition mu ànd ko taalibe Sëñ Tuubaa yi xam ngeen da ca rakkam yépp doonoon tàmbale Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Mouhamadou Bachir Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Mouhamadou Bachir ñu ko doon taxaw ànd ko nag ak Baye Fall xam ngeen lañ ci def am wàllu seex Sëriñ nag kenn génnu ci kon booba ña doon liggéey ci ma am na ñu wax ne tolloon na ci ñetti junni nit mu wàññi lu bari ci main d'œuvre bi ñu waroon fay njàmbaar boo murid yi wane woon ba fii mu ne moo kon mboolem lu fi lu fi di gàllankoor gëm nañ ne lépp suñu borom dana ko ndax dafa bi ci biir ñaan bu nangu sëriñ bi nag li ko ci war waxtu nekk ma ngi ca lépp loo xam ne war na ko wax dana ko wax lépp loo xam ne xam na ne lu ajoo ci dëkk bi day ma nga ca ngeen xam ne ne sëriñ Touba dafa wax ne Touba ku fi sam xel indiwu saw xel dana la fi kon ñi fi ñëw ñëpp yaakaar lañ fi indi bu sañoon na kon ku fi ñëw ku ne li nga fi yaakaar suñ borom daal ci dimbali moo tax moom guddeeg bëccëg amul soxlas boppam amul yitam li ko ñor mooy ñi fi ñëw ñëpp seen yaakaar te mboolem ko fi mas a nekk Sëriñ Tuubaa tàmbale ci Cheikh Mahamadou Moustapha Cheikh Mahamadou Fadil Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Salihu Mbacké Cheikh Mahamadou ba ci Cheikh Sidi Moukhtar ba ci Cheikh Mahamadou Mountakha mi kenn ku ci ne sa yite jëpp du soxla sa soxlas bopp waaye soxla yi nit ñi la ci biir loolu itam moo tax lépp loo xam ne war na ko caa wax yoonu murit dafa am nu mu baaxoo te loolu fa suñu yéene mu soppi mooy baaxoo di jàmbat ci rajo ndax koo xam ne boo waxee ñu dégg la ka nga war a waxal lan ko war a wax ci dëgg danga ko wax bu fekkente ne difu ko nag boobaa la nga war a jël ci sa responsabilité nga def ko waaye nag sëriñ bi mu ngi ci ay yéene te gëm nañ ne itam allah balaa yàgg. lépp suñu doom dana ko ci dimbale na nag ñi ne ci quartier yu sori am na ci ñoom yërmande lool ba tax na xam na ne biir dëkk bi sax liñ si war def bari na waaye nag ñi ne ci biti bari na ba daanaka ñi ngi bëgg ëpp ñi ne ci biir dëkk bi moo tax nag yitte ji li ci ëpp rawat na lu jëm ci courant ak ndox ak yoon la ci ëpp lu ci ñëwati bu doon téeméeri ñu fex ba juróom benn fukki yoon juróom ñaar fukki yoon jëm ci quartier yu sori ndax dana gën a xëttal dëkk bi dana gën a wàññi seen coono loolu daal bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi xalaat na ko te ci la nekk te am na ci ay yéene boppam yoo xam ne nag euh, kilifa kenn du ko ci waxam waaye moom ku amee xalaat la ndax sëriñ Tuubaa ne mission ba la def loo ku ne liggéey ba la def loo waaye moom sëriñ bi ci boppam am na xalaate boppam ak yéene boppam ci biir loolu itam ñoo xam ne Tuubaa dëkk la boo xam ne ni ma ko waxee rek amul fenn ndax dëkk bu toll ne man ñaari million nit te di titre foncier bu kenn nit moom loolu amul fenn jàpp maire bi itam nga xam ne moo fi nekk sëriñ bi du ko tànnal boppam muy loo xam ne nit ñi def wate bi ñu koy wate sax dafa neex sëriñ bi mu du ko def rek waaye daanaka ay soxlawu ko ndax wate boo xam ne benn liste lay doon loolu daanaka du wate ndax waaye démocratie dafa am génn kilifa gu mag ci àdduna koo xam ne sax du du du du du am jullit waaye dafa wax ne waa Tuuba démocratie mooy nit ñi lañ bëgg ñu àttalante moo ne nag bu fekkente ne nag tubaab yi ñoom ñu ngi dégg démocratie bokk te li démocratie ndax démocratie mooy la nit ñi bëgg bu fekkente ne nag ñoom dañoo jàpp ne ku ne joxe sa xalaat mooy démocratie te waa Tuuba tànn jël seen kàddu yépp jël ko dóor ko ci biir kàddu sëñ bi loolu démocratie féetewu ko kon loolu itam lañ xam ci biir démocratie kon nañ leen ci fekk si seen bëgg-bëgg fekk si ci leen seen gëm-gëm ndax léeg-léeg nga dégg ku naan sax ndigal amul waaye loolu ku koy wax da bokk ci yoon murit ku xam yoonu murit xam ne ndigal moo ko fonde boo ci génnee ndigal dara desatu ci yoonu murit mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere kon loolu ne ko ñépp xam ne noonu ci biir loolu itam kon ñi ngi sant ndax mënees ñàkk sant ñi nga xam ne ñoo seq dëkk bi di ci liggéey Serigne Touba te lépp di sos ci sëñ bi di sosi ci kàddu sëriñ bi di sosi ci ndigalu sëriñ bi ñoo ñëpp ñu ay jàmbaar yu wér koo xam ne kenn ku ci xam ne yaa ngi koy def bala ñoo xamoon njariñ bi tey nga xëy bàyyi kon la ci jiitu rek mooy maire bi nga xam ne mooy maire dëkk bi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci dëkk bi ndax foofu itam am na tuuti du ci mat a leeral ndax nit ñi itam waxtu dañu ngi jàmbat di dal ci seen kaw waaye nag nit ñi it dañoo fayut comme yërmande sëñ bi dafa am ba nit ñi fayum rek moo tax ñoom itam liñ man da lañ man def ndax Touba ginnaaw Dakar moo boo demoon Dakar tey dem na ci ñeent fukki milliards Touba mënuñu am ñetti kon daan Dakar meeram Dakar man Touba waru ko boo demoon Thiès Touba mën na ko xaw a ñaar budget maire tu moo bu Touba loolu tam kon dafa ma taxam ndax yërmande sëriñ bi ñi nga xam ne sëriñ bi dafa bàyyi nii seen cooba rek ba séddi leen ci moo tax ñoom itam lañu war a mën mënuñ ko ndax euh, li ñuy wax bala ngaa jàmbat li la war danga koy def ba di gërëm it day daayira Hizbut Tarqiyyah ndax ñoom soldaar yi Sëriñ Tuubaa ndax dañoo tontul Sëriñ Tuubaa ndax tubaab yi dañoo jàppoon ni ci njàngum tubaab ci la ñuy fexe ba rekki ngëmug taalibe sëriñ Touba indi ko soldaar yoo xam ne ña yaroo ca daari tëddee ñoo ñoo leen posté wala ëpp nañu posté seen dund gépp ñu jeexal ko ci liggéey Serigne Touba amul guddi amul bëccëg boo leen bettoon xaaju guddi boo demee ay xasee nañu lépp lu leen Serigne bi wax amuñ ca xalaat amuñ ca yeexintal amuñ ca lu ñu lu ñu lu ñuy nattale wala lu ñu bëggoon wamaaxoo li ma waxoon Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ci guddi ne ko wamaaxoo salabu lixtiyaar li xusni sannihi mooy. ab bi kat dafa war a fexe ba lu ko sëriñ bi wax wóor ci indi tànn boppam ñoom yàlla defal na ko ndax dund naa ko ñoom ndax ba ma yoree liggéey ba léegi mën na fukki at te loolu laa xam ñoom di gërëm itam daayira muqaddamatul xidma ñoom itam ñuy ay jàmbaar li ñoo xam ne ñëpp xam nañ liñ doon ci yoon bi xam nañ liñ bokk ci biir yoon waaye dañoo jël lépp jaayante ko ngir Sëriñ Tuubaa wutuwuñ dara soxlawuñ dara jël seen dund gépp di ay ndaw jaayatu ko ci liggéey suñu tool di ko liggéey ci jumaa ji te ci dara kenn fayu leen ci dara ba jumaa ji ku xam ñaar fukki ci ginnaaw ak ni mu mel nga xam ne jàmbaar dëgg lañu di gërëm it daayiratu safinatul amaan moom daanaka mooy al amru bil maaruf yi nahyi ani munkar ñoom itam seen taxawaay ndax li ñuy def ku ne xam na ne dañoo nekk ci li ñuy wax réewum laïcité te Touba di dëkk boo xam ne dëkku diine la kon sàndarma ak police ci ndigalu sëñ bi dañuy tënku waaye am na loo xam ne sëñ ñu ko tere ñoom ñoom nag ñoo wutu sëriñ bi ci loolu lépp loo xam ne sëriñ Touba bind na ko ci mën la foofu sëñ tere ko wala lépp loo xam ne wax na ne bëgg moom am ci dëkk bi guddeeg bëccëg ñoom itam lañ ca man ñu ngi ciy góorgóorlu guddeeg bëccëg di ko sàmm ba dëkk bi tey di waxtu wu ne xar kanam bi dund xar kanam lislaam ku fi dikkee xam ne dëkku jullit la di gërëm it day rawdu rayaxin ñoom itam ci wàllu xam-xam ñi ngi liggéey liggéey bu rafet liggéey bu am solo boo xam ne màggalu tubaab gi diiru ñaar fukki at yi leeral nañ ci nit ñi ba gën a xam Sëriñ Tuubaa ak ak njàngaleem gën a xamit mbindu Sëriñ Tuubaa di ci taalifi téere di ci bind di ci def ay waxtaan yoo xam ne mu ngi jari nit ñi waxtu wu ne ñoom itam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax ñoom itam dañoo jàng ba am ay diplôme yu kawe jaayante ngir Sëriñ Tuubaa di gërëm itam waa ci kanam ñoom yàggut ñaari at ak waaye wax naa leen jàmbaar dëgg ndax daayira bu ëpp at lu ma ñett téeméeri million loola la leen ko may mooy ña ko jiite ñëpp nit ñi xam nañu borom pour xam na ni itam de sëriñ bi daa wax rek di di leen laaj luñ mën di ko defum xam dafa mel loolu bokk na ci li leen may loolu di gërëm itam waa xuddaamul xadim ñoom itam seen posture ak seenu jaayante Sëriñ Tuubaa ndax lépp luñ dégg ñu wax ko te méngoowut ak lu ñu war a wax yoon wi duñ ca tàggu ndax Cheikh Saliou Mbacké kat dafa am lu mu jàngi doon dafa waxoon ne taalibi bu ñu tooñu sëriñam boo fayul tàggoo ñoom nag loolu ñu ngi ciy góorgóorlu guddi bëccëg di ceef luñ mën ak li luñ mën waa xidmatu xadim itam ñu ngi leen di gërëm di gërëm itam waa daayira Matlabul Fawzayni ji nga xam ne ñoo seetal dëkk bi jàmbaar lañu waxtu ne ñu ngi ci guddi bëccëg ak daayira Matlabul Fawzayni bi nga xam ne hôpital boo xam ne ay pir yoo ko tabax ñoom ñoo def ko ak ñàkk ci di gërëm itam waa Maa-u Rahma maw rahmati ñoom jàmbaar lañ lool ñoom la sëriñ bi dénk ndox mi ñu di ci góorgóorlu di ci di ci def ci te di ci bés def def posté di gërëm waa rabita bi nga xam ne ñoo yor njàngale mi kon ñoom itam ñu jàmbaare la ndax alxuraan moo tax sëriñ Tuubaa sëñ ci ñoom itam ñu ngi koy sàmm di ci def yitte di ko ànd ak sëriñ bi waxtu ne kon yii yëpp mu wane ne yoonu murit sëriñ Tuubaa defal na leen ñoo ay fondation yu dëgër yoo xam ne lépp loo xam ne bëgg nañ ko te am ca dogg am ca positif buñ ko defee suñ doon doy lay ci dimbali dinañ ci gën a soññ it ñu xam ne fu yoon wi àggit loola leen fa àggale ndax euh, tooli àllarba yi moo jur day yi tey ndax tooli àllarba dafa dajale lu bari ndax ca cosaan ni mu daa demee tund wu ne ña fa dëkk dañuy seet ki nga xam ne fukki kilo gerte la mën a am ak ki nga xam ne dooleem la ak ki nga xam ne waxtum la am ñëpp daje fa di bay tool bi xam ne wuñ ci ko dëkk fenn wala ku bokk ci xeet kon loolu bokk na ci liggéey yi nga xam ne Serigne tubaa liggéey na ko ndax tubaa dafa jur ay Touba yu bari bari toore àllarba yooyu nag moo jur daayira yi ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko njëkk a sos tuddi woon ko diiwaanu Mouride te booba moom ci boppam moo ko jiite te rakkam yëpp ca lañ bokkoon suñ Modou Obale ca la bokkoon suñ Modou Mamoun ca la bokkoon suñ Farma ca Farmata bokkoon suñ Modou Xaban ca bokkoon si mboolem Cheikh su mag si suñ Modou Moustapha ñëpp ca biir daayira boobu la joon mu tuddoon diiwaanu Mouride kon nag loolu ñu ngi ci soññ nit ñi ñu xam ne lu doomu Sëñ Tuubaa bokkoon sos ko loolu jumbul kenn te laa yastawi alqaaciduuna min almuminina gayra uli darari wal mujahiduuna fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim ka toog këram xaalisam ak alalam mënta yema kat ki jaayante jël alalam ak waxtoom def ci Tuubaa suñu borom ko wax ci alxuraan kon dëkk yooyu nga xam ne Sëriñ Tuubaa sanc na ko dafa jër ndax Tuubaa département bépp ak lu ko lu lu lu ci tegal lu bari sax fu ci ne dëkk bu ci ne Sëriñ Tuubaa joxe ndigal borom mu ko na mu ko na mu ko na mu ko daa digle ne Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa waxoon ne bi mu leen di sanc la daf leen waxoon ne bu dëkk bu ngeen ci sanc da ngeen wut fóore ak koo xam ne ku dégg ku jàng xam-xam ku jàng alxuraan wut fa buude wut fa tëgg wut fa lawbe wut fa ndaw du jub mën a yoon bitig ba nga xam ne képp ku nekk ci bitig ci dëkk ba doo wuti fenn lenn di ko soxla ndax li ñuy tuddee euh, alxijaru te mooy immigration tey te lan di ko ma tudde fu lislaam àgg moo moo ko fa àggale ndax jaafar ibnu abdul muttalib ca Éthiopie ñëpp xam na ne bokk na ci tasaar lislaam Muaz ibnu Jabal itam ku xam na ne xijjir boobu bokk na ci li tax lislaam yaatu fii ci Afrique itam euh, li fi indi lislaam mooy ndax gàddaay yett ka tax di di gàddaay mooy gàddaay ngir rawale sa diine mooy inna ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'budun ak ki nga xam ne day gàddaay ngir rawale xam-xamam falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi diin ak ci gàddaay ngir wut si bu mu tëdd loolu mooy huwa llazii ja'ala lakum al-arda zaluulan famshuu fii manaakibihaa loolu nag mooy jur dëkk yii am tey ci yoonu wóor dinaa ci indi ñaari seere ndax benn bi ki ko seere ab jullit mooy sëriñ ma dem nett mooy li ma nett leen ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy bi mu sëñ ci Taïf ci la ko ko Cheikh Mouhamadou Moustapha wax ne ko sëriñ bi kat mooy ñu digal ma Cheikh Mouhamadou Fall dina dëkk bu ñuy sañcat nañ ko sañc nii te gis ngeen tey Taïf am àgg am ci beneen boo xam ne ka ko seere du ab jullit mooy Paul dafa bind ci daaru bayre daaru bayre maam Cheikh bi moo ko sancoon mu wax ne waris na nag kañ te tagg leen ndax dëkk la boo xam ne soriwut ces waaye mu wax ne ko Cheikh Ibra sanc ak dëkk ba fu mu àgg ak la fa daje wax ne indi tabax def na fa jàkka indi na fa kuy jàngale alxuraan am indi na fa kuy jàngale xam-xam mu ne ko toll juróom-benn at ba keroog nga yam fukki at juróom nee na sa yitte jëpp mooy jàng boo ko weesoo nag neen daan la tàggat ci liggéey ak ak ak ak nangoo liggéey mu ne def na fa nag benn tool bu mag boo xam ne lépp luy ñor ci réew mi def na ko mu ne yëmu ci it fexe na ba mboolem lu di soxla ci am njaay ci wàllu commerce fexe na ba am ci dëkk ba ba mujj na saxaar gi nga xam ne daa jaar foofu jëm dara saxaar gi daa gi dem dara ak gi jëm njariñ mooy jëm Tamba léegi nit ñi ci boppam ñoo mujj ñaan ne dañoo bëgg ñu feex ba defal leen fa alt boo dafay wàcce ngir mboolem li ñu soxla am na ko kon loolu itam mu bokk ci xet baax yi fi ñu tubaay ñu bindaat itam ci dëkk bu ñuy wax Touba Toul nga xam ne Sëñ Gaawaan moo ko sanc ñu wax Sëñ Gaawaan nam sanc dëkk ba ak fam ko fekk ak lam fa def bokk na ci la ci gën a kiimaane daa wax ji dafa gudd moo la ci gën a kiimaane nga xam ne siñ gaawaan def na ko fa mooy bitig yi nga xam ne def na ko fa ba lu nit soxlaate doo dem Ndakaar wala fenn waaye bitig yooyu da koy am mu ne li ñu tuddee marché yi usbuwa yi nga xam ne mooy marché yi ñuy def ngir ay bis nee na moo ko fa moo ko fa taxawal nee na te yëngu ci nee na saa suñu accès ci bis bu ñu jaayee ba ngoon ñi jërlut ñëpp day dajale seen marché bi si jënd ko ngir soññ ko ñooyu kon ñoom mboolem lu ñu doon def defuñ ko ngir àdduna waaye dañ ko doon def ci wabtaxi fi ma aataaka allahu daara laaxirata wala tansa nasibaka min dunya kon xam naa ne ci dëkk bi daal mayees na ci yamare foofu wax ji ndax moom wax ji boo ko toppee du jeex te desaan beneen waxtaan mu mujj mooy li ci màgg bi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 ku ko xam ko ne xam na ne boo ko ko waxee sax boo yeexee doo ko doo ko nettaliwaat ndax positif ak doom comme ci ma fële ci Masaalikul Jinaan itam noonu la demee te nañ ko natt ragal nañ ne ñetti weer gën jaa bari te buñ ko gaatoo woon sax waaye liggéeyu finition boo ko gaawtoo boo yeexee dana ci am lu la métti waaye bagage yi lépp ñëw na kon foofu yi daanaka magistrat wax li ci ëpp jaaxal fii ci daarul mën naa ndax kër Sëriñ Tuubaa ga ci héliport Serigne Cheikh Jëmbu Fall la ko Serigne bi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 ba ca topp mooy sëriñ ba nugg di sëñ Ibra Xujja moom it gis ngeen jiite pëstéef yëpp ba mu ci def ba ca def mooy sëriñ Sidi Jenn pour sëriñ Naar Jenn mooy gis ngeen diggee ba mooy saal bi nga xam ne mën naa am cérémonie officielle bi ci jëmmi jamono xëy na du ñàkk ñu di ko fa defee ba ca dolli ko waat mooy euh, wàkkee sëñ Aliou Diouf Lambaye ndax ñoom ko xam ne ne ci ñi sanc yoonu murid jàkka yi ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo ñu di ko liggéey fii ci kër Sëñ Tuubaa ji itam sëñ Mour Ablaye Fall Ndar moom moom la ma min di doomam euh, euh, sëñ Mour Ablaye Fall ci boppam moom la ko sëñ bi sant man mii la yónni woon ma yóbbu palaab ba ci moom yàlla def na sax ca laa ko mu jigi sax ndax tegaatu ci ñaari weer tàmbali liggéey bi far yàlla doo suñu borom jële bakkanam ci biir liggéey bi kon moom itam euh, laq na ngërëmu Sëñ Tuubaa ndax ab Baye Fall bu dee liggéey Sëñ Tuubaa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 ba mu ko ba mu ko bëggee rek ci la ko suñu borom doxal ndax euh, Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne Sëñ Tuubaa du santaane mukk lu am def loolu waaye nag du fi ko bisub sëriñ bu mag bi gaa yi jub si ko jot na sëkk ndax moom yegsi fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bis bu mag boobee waral ñéppi safar